Euh, dañuy ñëw ci livre bi déjà euh, la première question mooy euh, lan mooy say motivation déjà ba nga bind livre bi ak lan moo tax nga choisir ki nga xamante ni moo ci Aminata Touré. Euh, bon peut-être euh, peut-être première motivation bi moom mooy benn situation boo xamante ne bon ça arrive peut-être à tous les reporters yu nga xam ne dañuy dem ci terrain bi di couvrir. Mm-hmm. le 12 de septembre 2022 c'était le jour de l'installation de l'Assemblée nationale. bu ñu doon installé député quatorzième législature bi bon j'allais là-bas pour couvrir et puis bon y avait euh, benn scène boo nga xamante ne peut-être ñu bëri gisuñu ko woon euh, mais comme assemblée nationale si biir hémicycle fait plein de députés fait beaucoup de bruit ce jour la mm-hmm. donc bon ma gis benn scène euh, bon voilà scène boo xamante ni c'était triste très triste Aminata Touré moom kase si benn siège autour député Benno Bokk Yaakaar yi. ba kenn waxul ak moom kenn faale ko alors que moom moo nekkoon seen chef il y a quelques jours donc je me suis dit que bon loolu contraste la comment ça fait que kii moom bon ma xool ma xool image bi bon c'était frappant donc moom mu nekk ci téléphone m rek moom kese kenn waxul ak moom donc ça m'a frappé je me suis dit que bon pourquoi pas m'intéresser à ça et puis bon quand j'ai euh, j'ai continué à faire des recherches affaires yooyu noonu bon j'ai vu que bon elle une histoire bon Euh, très intéressante à raconter donc je me suis intéressé sur ça et puis bon comme aussi c'est une, une personnalité politique boo xam kenn bind ci moom et puis bon voilà je me suis dit que pourquoi pas se lancer quoi et faire le le bouquin noonu la